asalaamaaleykum mbokk yi tey la dibéer ñaar fukki fan ci weeru barax lu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar ñaar fukki fan ak ñett bokkul ci lim yi fàtte lim bu rafet la kon tey ci dibéer ji rafet na li ñu ciy tere tere watandiku moom dibéer mooy ko ca watu wala ko ca tàggoo ñaanuk bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma àjjana te musul ma ci sawara allahumma inni asaluka aljanna wa astajiru bika min annaar xaddisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mësumaa gis fu gën di mukk lu dul ne bàmmeel moo ko gën a ñàng xaddis bi ibnu maaja moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa raaytu manzaran qattu illa wal qabru afsahu min rawaahu ibnu maaja waxtu julli yi suba waxtoom naata bi juróomi waxtu wu tegal juróom fukki simila ak benn yu toftal fanweeri saa ak ñeent tisbaar benn waxtu wu tegal fanweeri simila ak juróom-ñeent takkusaan wu tegal fanweeri simila ak juróom